diggante ndawu HLM Patte ak soxna yi di daan seen doole ci jardin piblik bi neexut benn yoon ci jamono ji ñenn ci gone cité yi ñoo daal soppi bii lee bërëb ab terrain de football mu nekk lu Caroline ñaa bokk ci ñi di fay yëngu di naqarlu ñëw ni ñun ci suñu propre rek toog fi dëgg la dañ fi dëkk demandé toog fi mais mairie moo ñu fi taaj avec des papiers bien légaux ñoom nag bu fekkee dafa am ñu nekk seen ginnaaw man loolu xaw ma ko wax dëgg yàlla waaw loolu moom bu dee dëgg rek laay wax lijjanti moom man li ma lijjanti mooy nañu dem terrain baa ne nañ fa fulbale ji kenn terewu leen fulbal espace de jeu dafay am ay xalel la ñu say da am sa équipe entraîneur nga demal nga wut sa espace de jeu nga dem def ko fa man loolu man ça m'engage euh, euh, non tey la ñu commencé yëkkati bagage yi muy dem di yàqu te déjà man maa ngi liggéey ak benn ONG ENDA dañu am formation qu'on a débuté depuis hier fi ne war nañ ko finaliser le jeudi léegi man tey suñu defaree projet boobu ñu def formation ba pare teg table yi parce que benn xale góor ba dafa ne woon table bu ñu teg dinaa nangam tàndayam dindi moo tax nag ma woote walu nag waaw pour ñu si ñu ndax si ay jigéen rek ne ay mag ay mag maa ci gën a ay mag a fi nekk tey mënuñu xeex mënuñu xuloo bu buñ ko mënee seen ay doom moo koy def te dëkkandoo la ñu ngi ciy sóor daal lu bare muy dëkk bi bëgguñu dëkk bi yàqu bëgguñu benn problème dañuy entraîner terewuñ leen entraîner nañ dem terrain ba ñu entraîner fa suñu yoon nekkul ci loolu mais mënoo ñëw fekk nit ki fu mu aménagé daw ci di ko sonn ñu dindi fi jaaykat yi fii fi mar muy ay tuuma yu Nicolas Mané di entraîneur yi lee gone nangul benn yoon dina benn table nga si table boobu boo defaree li ngay defar nga yóbbu ko sa biir kër loolu la ñu waxoon. ñu dem ba ci biir IPACA ñu jox leen mu moitié ci moitié bi ñu leen jox te moitié bi ñu jox ñun ñoom jël nañ suñu quart moitié ñu bàyyi leen parce que tey solo boo gisee ma andi fii di tàggat xale yi ñuy entraîné fi espace bi ñu ñoo ko moom pour les enfants pour ñëw di ci foofu. suñu doom amatuñu suñu foofu suñu doom fii la ñuy foofu si tali maintes fois oto bëgg na leen taw bal jënd na leen bal ñaat bal bal yu toj amatuñ fu ñu leen foofu cette année nag comme li la ñu yàlla dénk te dañu waxoon ni fële leen leen yemoon maire yi ñu xëcc ba fii ñu xëcc ba fii kon boog li ndaw li ñuy jox nii damay ñaan parce boo jëlee secteur bi nekk secteur bi nekk jëfal Sicap Jardin mu nekk coow bu rëy bu am ci jamono ji ci HLM Patte rawatina ci jardin public bi mu des mairie bi ak ñi ko ëmb daa waxtaan ngir jàmm daa di dikk ci diggante ndaw yi ak soxna yi di fay liggéeyee.